journée bu tey c'était juste pour question de ouverture session bi ñu gis ndaa am nañu quorum bi quorum bi su amee il va ouvrir la session la conférence des présidents va se réunir pour le calendrier. quorum boobu noonu il nous faut plus 1 ce qui veut dire 83 députés c'est-à-dire la moitié plus 1 donc si on atteint ce on va ouvrir la session Nous, on ne sait pas encore parce que la conférence doit décider des lois qui doivent passer ou pas avant que l'on puisse établir le programme. Donc ñun dañuy xaar ñoom lu ñuy décider nañu soog a jël pour ñu xam exactement ce qu'on doit faire mais je reste convaincu que y a des lois donton on ne voit pas l'intérêt parce que gisuñu président buy génn lan moo tax mu bugg a dissoudre assemblée. Mhm. moom dafa déclaré nii day dem. Mhm. gisatuma jëriñ dissoudre assemblée. s'il dissout l'assemblée ce qui veut dire moom mu ngi ci calculam. Mhm. ay calcul yu kenn xamul te loolu moom c'est dangereux par exemple peut-être il va dissoudre l'Assemblée et s'il dissout l'Assemblée il n'y aura plus une institution qui pourra lui bloquer quoi que ce soit un et après ils vont essayer de peut-être aller recueillir Ousmane Sonko et tout ce qui va créer comme boucan ça sera une occasion pour lui de déclarer voilà vu l'instabilité je vais encore faire deux ans de temps deux ans voilà de service le temps de pouvoir réguler tout avant de partir donc ce sont des moyens qui sont là nu personne ne peut prédire ce qu'ils veulent faire parce que kenn xamul si si lan la ñu basé wu pour def seen calcul mais xam nañu ni si proposé loi la am na loo xamante ne ñoom ñu ngi koy préparer si suuf pour mu jàlla mu faciliter leen parce que quoi qu'on puisse dire même suñu ko defee couplage élection kese lañu mën a gis donc si ay octobre yooyu ils vont dissoudre l'assemblée parce que am na ay délais yoo xamante ne il faut les respecter 60 à 90 jours soo dissoudre assemblée pour nga mun a programmer ay élection donc su intervalle loolu octobre octobre la mën a doon ay octobre yooyu ñu dissout assemblée mais si l' assemblée est dissoute au mois d' am na problème yu bëri xew parce que si c' est dissout ce qui veut dire y aura pas de réunion au sein de l' assemblée et c' la période idéale pour discuter des projets de loi euh, loi de finances et consorts donc si on dissout l'assemblée à ce moment ce qui veut dire le président a la mainmise totale pour dérouler sur le budget qu'il veut le budget de 2024 il pour contrer ou pour donc c'est un danger. te yéen lan ngeen fas yéene def. bon man duma damay voter contre mais mun ma ne parce que yéen moom ça ça regroupe plusieurs personnes te nekkuma si xalaat keneen chacun est libre d'arbitrer et de voir le danger qui qui nous guette. pour voir est-ce que mun ngeen contrer yéen euh, yéen ñi nekk ci opposition. bon mun ngeen contrer votre loi boobu c'est bien c'est bien possible s'il y a un accord dans Yewwi parce que Yewwi seulement nous sommes si nous regroupons Yewwi Wallu on fait 82 mhm. et pour que cette il faut 99 députés. Donc si on suppose que tout le monde est là, maintenant en plus des absences, ils vont afficher, comment je un quorum qu'il faut pour que la loi passe. Et que si les autres coalitions sont contre, la loi ne parce que ce n'est pas même de ceux de Benobokéakar.